Pascal li ko metti naqari ko mooy góor yi nga xam ne dañuy dem def 40 ans de mariage. Mhm. xëy romb benn kay di mais. takk ko ñaareel rek takk ko ñaareel. kër ga tasaaroo toppatootuñu kër ga. Mhm. léegi loolu lan moo ko waxal lan mooy cause yi lan mooy conséquence yi lu bees tey fii lay beesee. am na jigéen yoo xam ni seen kër jàmm amu fa maanaam téléphone ñu ngi lay wax wax ju bon. wax loolu. message ñu ngi lay lancé ay trac surtout naan la sa dara doyul sa dépense doyul doo góor doo patati doo patataar ku góor ki gis boppam gis benn xale romb ko fee ci koñ ba di ko neexal bëgg ko loolu jël xolam jox ko ko mhm. mu takk ko waaw xamoo woon xooj tànk ñu la koy brosal mhm. di la bës di la masse ak chocolat xale bu ndaw jóge fee di la ko defal di la tëmbalal lem du bàyyi fenn waaye kooku këram ndax du fa jógee bakkan jàmm la bëgg ci ba mu ko mënee am maa ci ànd ak yow waaye nag dafa am yeneen yu mhm. xew mhm. xam nga ki ngay wax nii jabar jee ko mayul jàmm mhm. mais dafa am koo xamante ni moo nekk góor gu doyluwul góor goo xamante ni dafa bëgg lu bees góor goo xamante ni interdiction da koy neex maanaam lu mu moomut da koy neex kooku mën na la doxaan takk la nga koy sëyal sëy bu rafet di ko xoojal di ko huile di ko vanille di ko chocolat mais du fa téye du fa du tax mu téye fa waaw parce que bëggul lu légal bëggul lu légal te moom am na góor yoo xam ne lu ñu xas ba cest à diir ñoom pour ñoom lu ñu xas ba am c'est déjà acquis acquis ñoom ñoo ko moom benn effort fa ci benn effort waaw surtout nag ñu am njaboot mhm. xam nga loolu cas dafay gën a compliqué am góor ñoo xamante ni ko mhm. bëgguñu responsabilité mhm. pour responsable nii ay lâche nañu Mhm. seen responsable noo def ñu fuir ka mhm. maanaam li indi lii dafa bari parfois ci jigéen ñi la mhm. parfois ci góor ñi la parfois tamit ci xale bu jigéen ba nekk fële la jël jëkkëru jaamu teg ko bët waaw goo xam ngeen ne xale la fa mu amee jàmmam fa lay toog lu ko neexal lekk moom la koy mais nag attention. Mm. am na góor yoo xam ne ay miikër lañ. waaw miir am na góor yoo xam ne ay neex sedd lañ am na góor yoo xam ne ce sont des pervers narcissiques. ma mooy li ma la wax. ba ñu nekkee ci mbedd bi dañuy baax mën a reetaan mën a mm-hmm. may te ba ñu nekkee ci biir ñu ngi tëggal seen waa kër mars. mooy ñi nga yow ñi ngi ma wax. sànq maye ñu seen jàmm ñi ngi ma wax sànq. ñoo xamante ne bu la xasee ba takk rek. Mm-hmm. pour ñoom ci de waaw ak yi non non non dama la bëgg a wax benn effort ñooñu moom non non lu leen neex na ñuy def ci mbedd bi. non non ci mbedd bi ñu naan déglu ma rek ma ñëw. daan daan génne ci mbedd daan maye 5000. Mhm. xale daan leen dindal bonbon. maire mhm. koñ bi ñëpp nañuy mhm. la lu tax ñenn góor yi seen jabar duñu leen may jàmm ci biir kër gi. waaw ñooñu moom loolu laa lay fu ñu dem moom man. parce que yow munoo dem booy xëy fajar. wakkel sa jabar 2000 bëgg mu togg ci añ togg ci reer jox xale yi paas ah mottali koo kër gi après nga fekkee ne nga tëggal ko raas bu mat sëkk mhm. moom mu delloo la ba mu neex mhm. ndax xale yi Ndakaar na ñëpp xam nañ léegi dañoo pànk mhm. waaw ma yoo ko jàmm mënoo fa am jàmm man mënoo maa ñàkk ñëw may la jàmm sama kër fi nga mujj mujj dama fa dul ànd ak yow mhm. parce que mënoo ma jox vers dépense dix mille francs jox ma deux mille yi boo yeewoo trois boo génnee trois mille francs yi nga may ko xale koñ bi cinq mille francs yi nga may ko yaayu xale ba mhm. loolu moom ànduma ci loolu moom boo ñëwee man personnellement duma la may jàmm